Mon Ndiaye nit ñi dafa tuñ ku ne ñëw na seet si ma fii ma ànd ak dal parce que dama xam ne su ma jógee bay ànd damay ànd ak ko jar ndax man namatuma dara ci àddina mais li ngay defal président Macky Sall ci région Kaolack ci département Kaolack ci ville de Kaolack Sénégal gépp seede nañ ko

Macky Sall duut ku ñuy laaj lu fi def il a posé ñun ñu ne ci mbay mi xam exactement li nga xam ne lii moom la def ndax semence bi Macky Sall di ñëw fii ñu ngi ci 5000 tonnes daaw ñu ngi woon ci 56000 tonnes 55000 tonnes ren yobbu nañ ko ba 65000 tonnes loolu musul am ci réew mi gerte gi production bi ay 60000 tonnes 100000 tonnes lañ fi fekkoon ren ñu ngi ci 1 million 453000 tonnes.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 bilan bi defe naa waa Kaolack ak waa àll bi sax ñooñu gën a mokkal bilan bi kon ñun ñi nga xam ne xëy na Kaolack lañ cosaanoo mais ñu ngi dakaar ñu ngi liggéey ci bureau yi defe naa yéen ñi gën a xam bilan bi nañ wax ci beneen registre nañ wax tuuti ci politique président Macky Sall di ngeen dégg ñi koy attaqué yëpp nit ki la ñu attaqué mais duñ attaqué bilan duñ ne liggéeyul Sénégal nag dafa am ñoo xam ne dañu gëm a di yàlla ndax yàlla li mu def soo ko buggee dindi dafay métti te opposant yi dama ne newuñ Macky Sall cuune la li ñu wax mooy bëgguñu Macky Sall en fait Macky Sall nekk président moo leen di déranger te loolu suñ ko buggee nag dañu xuloog yàlla yéen ñii am na cinq candidats man de ci cinq yi xam naa ci à peu ou trois duuma nag tudd seen tur am na ci koo xam ne moom xam nañ ne xam naa ko lool parce que def naa ak moom lu ëpp fukki at wante nag tooñ baaxul mais candidat yooyu lu ñu digaate defe naa balaa ngay mun a yore réew da ngay mun a yore sa njaboot mun a yore sa famille mais ku munul yore famille gëwuma nga mun a yore réew saalum saalum yi nag ci laa bokk ñi ñu ràññee lañ ñun ñu xam àddina lañ xam na kan moo baax ci ñoom xam nañ kan moo commencé liggéey war koo yeggali te ñun nag yéen lañ bokkal da ngeen defoon ne suñu xamoon ne Macky Sall du liggéey di Saloum dina nañ ànd ak moom xalaatuñ ko parce que ñun yéenay suñu mbokk suñu maam yi fii lañ lañ denc kon nag ñun Saloum Saloum pire lañ ku ñu rendre service wala ku xam ne xam du liggéeyal Saloum ñun soxlawuñ la ay digaate nag bari na dama bëgg nag ngeen yeewu ngeen yeewu bu baax surtout jeunes yi. ñun xaa gaa suñu wàll xaw naa wéy tuuti mais jeunesse bi pétrole bi feeñ na président Macky Sall ingénieur la en pétrole tombé war alaay gaaf ci magistère am la pétrole feeñ riir gi riir gi riir gi riiru pétrole la du daara soxlawuñ Sénégal yi bëgguñ Sénégal yi seen poche yi lañ bëgg ak seen njaboot kon nag fi mu nekk nii yéen a war a ràññee tubaab dafa ne

donc loolu dama koy reconnaître kon nag Modou loo am ci terrain Kaolack mérité nga ko parce que da nga bëgg Kaolack te nëbbuloo ko kenn yaa ngi terrain suba ak ngoon amul élection meloon ni sama maas gi nga xam ne dañu raasaatu ba élection jot ñu ne ñooy leader wax ñun duñ ko nangu wax dëgg la yàlla ma Yacine defaloo erreur yéen tamit jàpp leen ci jàpp leen ci ndax euh, li ñuy wax election addition la wante du soustraction yal nañu yàlla may ndam yal nañu yàlla may ndam. ma Yacine liggéey bi lii animation la ak dem ci nit ñi wax ak nit ñi maa ngi lay wax na fii nga teg sa tànk boo ko bawut liñ bëgg ci Kaolack yow bu ñu yeggee kenn du la ca man ndax liñ bëgg ci quartier bu nekk mooy ña fa nekk di yëngatu fexe ba bu ñu demee élection li ñuy wax soixante-dix quatre-vingt ñu yegg fa ca loolu waxatuñ ba may wax toujours ne waxuñ problème mu gagné ak ñàkk a gagné problème bi ñuy wax mooy naka lañuy ñuy def ba taux bi dem ci quatre-vingt loolu nag lii moo koy def. maa ngi lay wax na sa liggéey bii nga liggéey bul ko bàyyi feeg la 24 na nga saf fii ci koñ bi tànko tànk ànd ak kilifa yi nga fi nekk mbooleem quartier bi kilifa yi fi teew yëpp gis nañ leen ñi ngi sant di gërëm ñëpp di nuyu bu baax suma xarit kooku mën naa ko bañ a nuyu sax bu ko nuyuwul su ma waxee rek wax na su waxee wax naa muy mettre na fi Sëti Diop Cissé amoon lu may waxati ci moom lu may wax naan rek mi ngi ànd ak ñun di liggéey liggéey bu mucc ayib moom itam incha allah moom itam ñu ngi xaar lépp lu mu nekk ñu ngi nekk ak moom di liggéey moom ci loolu. lu ma guddal ma yaasin message bi nga xam ne mën ko tasaare fii xam nga ko ndax yaa ngi ci biir te xam nga li xew lépp lu président Macky Sall def xam nga ko xam nga nu mu ko defee ambassadeur nga comme tout moon monde da ngaa am droit pour dox pour wax pour yaatal parce que mission bi kenn nit mënu koo porter ku yaakaar na yow dong mën ngaa régler nag dof dikkal na la. ku nekk da ngay def dara rek pour mbir mi yomb maa ngi lay sant di wax na lii nga def tey geste bu rëy la waaye ñu ngi ko defari dinañ ko yëg maa ngi seedewaat encore beneen fois pour waxaat beneen yoon ne lii ma yaasin def moo ko defal boppam moo ko saytul boppam moo ko financé boppam jaaraama ma yaasin ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay remercier maa ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam may ñu leen wecc